jërëgeen jëf mbokk yi suñu mbokk internet yi ñuy topp ci Leewtoo TV mbégte ak contentement la ñuy am heure bu ñu jàkkaarloog yéen ni ngeen ko xamee nag tey ñu ngi fii ci euh, Gambia gannaaw ba ñu jëlee li nga xamante ne bii moom mooy face to face bi amoon démb fii ci stadium bu Bakau te Jams production tëgg journée bu mag boobu noonu ñu ngi nii toog jàkkaarloog Jams Jams ñu ngi lay nuyu. Mbaye Babacar maa ngi lay fay di la ziar di la nuyu bu baax di la jox sa di nuyu sa équipe bi nga ànd yëpp. say caméraman technicien yëpp maa ngi leen ziar bu baax a baax a baax di nuyu di nuyu ñu ngi fekk yëpp liiru jaan wuli ak képp ki fi nekk rek maa ngi lay ziar bu baax da jox jam wàccuwaay. Jams ñu gis démb signature de contrat bi bëri woon na coow. bëri woon ne li nga xamante ne bii moom mooy ay bruit ñu mu mel ni manque d'organisation euh, amoon na ci est-ce que yaa ngi doon xaar loolu. waaw ni nga ko waxee signature contrat bi bëri na coow bëri na bruit manque d'organisation man gisewu ma ko noonu ndax li ñu gis mooy ñun ay ndaw lañ nekk ci làmb di góorgóorlu ñëw jël lu ñu am di ko bokk ak ñoom kenn ku ci nekk di si suturloo kon nit ki ki organiser bisam respecté ay mbër rawul la jël na ay mbër fay leen xaalis jëlee ay doomu aadama senegal ñu ñëw ba fii la indi presse bi indi ñëpp jëlee tëggkat feneen ñooñu respecté nga leen jox nga leen seen gëdd jox nga leen seen wàccuwaay léegi nag ñoom respecté bi nga leen ni nga leen respecté ñoom ñoo la ko war a delloo delloo bi ñu la koy delloo mooy contrat la kenn ku ci nekk bi ñu koy signé mhm. wax nañ la su face à face amee mu nekk deux personnes lañ la may mhm. waaw mbër mu nekk deux personnes lañ la may nga ñëw ànd ak cent personnes wala deux cent personnes su yàqoo yaa ko yàq bu ñu nee organisation ñu bëgg ñu organiser leen ñoom ngay ñuy organiser ñu bëggul ñu organiser kenn du leen organiser làmb moo naqaree defar làmb dafa informel. moo ànd ak coow. waaw làmb da ngay wax ak nit teg ko ci kayit ci lu leer bu demee ba bis ba muy doxalee nu ko neex te yow boo ko toppee sa événement mooy yàqu moo tax da ngay mujj bàyyi leen rek waaye def baax na waaw ndax bis tamit bu réussiree du man promoteur bi kese mbëri da ciy am solo te ñoom dafa am lu ñu ni bàkkee ñoom dañuy wane ne ñoom ñooy comme Modou Lo wala Balla ñooy VIP fii ci Gambie. li ñoom Modou Lo ñoom Balla Gaye am ci làmb ñoom amaguñu ko est que ñoom ni ñu ñëwee signature ñoom Modou Lo ñoom Balla Gaye dañ ko defee signature ku si woo signature place bu classe da ngay ànd say nit waaye boo ñëwee ku ci nekk fa nga war a yem ngay yem waaye koo xam ne dafa ñëw contrat goo ko signé woo ko bëreeloo la xeexul xeexul bëgg gën a feeñ mbër mi. Mhm. di def yeneen su su su amul nag ñu jël seen responsabilité wax ni affaire bi demee. mais mais mais gis nañ ne combat bi euh, euh, enjeu bi fi mu toll. gis nañ ne ñoom ñaar ku ci nekk da soxla sa morom yàlla def nga décroché boobu combat euh, ñu gis démb ci stade bi coow li wax naa ko sànq bari na trop bari woon na trop mais yow est-ce que euh, sécurité bi nga xamante ne bi moo nekk fii ci Gambia est-ce que waxoon nga leen ne euh, signature de contrat bi mën na bari coow na ngeen ko soor defoon nga ak ñoom briefing ba nga xamante ne bi li am démb waru leen woon a bett. sécurité bi ñoo gën a xam ñun démb li ñu fee indi sécurité kenn mësu ko fi indi sécurité. fi ñu ko defee rek bëgg sécurité moo tax ñu def ko ndax face à face fii ñëpp supporters yëpp ñoo doon toog benn place soo gisee ñu dem am ut fu am tribune pour ñu mën a xaajaloo ba démb ñun bu fekkoon ne yóbbuwuñ foofu supporters yi daxasoo day gën a yéeme te fii kenn mosu fi def face à face séparé supporters yi mbëri ñoo doon toog benn place supporters yi ñoo doon toog benn waaye ñun kon xam nañ loolu moo tax ñu dem foofu noonu def ko defee ko fa séparé supporters lépp li fa am jógewul ci supporter ci mbëri la jóge ci mbëri la jóge ndax ñoo ñëw dajji porte yi ànd ku ci nekk ànd ak lu mat trente cent nangam personne ñëw ci biir foofu xaju dañu yàq programme bi loolu la kese. gis nañ ne combat bi am na am na am na am na am na coow ba pare jaay na boppam combat bi fi mu toll nii moom kenn dootul wax ne combat bi amul amul amul promotion parce que li li won li am démb rek wane na ne combat bi. incha allah jouru làmb ja kenn du may sa morom dara mais tamit li ma la wax sànq est-ce yaa ngi bàyyi xel jouru làmb ja lu mel nii. waaw ñu ngi koy bàyyi xel ndax làmb ji ñun bi ñu ciy dugg ba lépp lépp lu ci am rek du ñu bett. Mm-hmm. làmb joo xam ne la fii ci réew mi lu mat sept ans amul promoteur bu ko démarché wul chaque année. day dem ba wa taxaw ba kenn benn mbër ñu ne jot na avance mu ñu ne keneen ki toog ne dafa jekku ba pare du ma ko jël. ñuy moytu wante ko moytu wante coow li nangam maanaam combat boo xam ne la ba léegi ni sax da ciy def loo ciy dox kenn ki njëkk koo yëg moromam mu ci des ah bi loolu du loolu moom du ci am loolu jàppal ne du am day échec. kon mu nekk combat bi boo xam ne wax dëgg yàlla yàgg na fi ku ne nag bëggoon nga koo tëgg ñun nag bi yàlla defee ñu tëgg fi suñu combat bi passé mm-hmm. gis nga làmb jooju nu mu fi mel mm-hmm. te bëggoo dem ci dëkk tamit di def dara di delluwaat ginnaaw da ngay bëgg a li nga defoon nga jëm ko yokk gën a ci kanam ñoo xam ne ne Baye Mandione Koyantaan événement bu mag la woon mm-hmm. fii ci Gambie ñu bëgg ko yokk moo tax ñu ñëw proposé mbëri budget kese yoo xam ne leer nañu suñu leen ko tegalee combat bi dina taxaw mësuñu koo fayeku waaw kenn su ko ci fayeku su ñoom ñaar fii ci Gambie amaana mun naa la wax ne budget làmb jooju noonu làmb ji bokk na ci combat yoo xam ne bi làmb gaam bi làmb gaam ba léegi combat bi mosu gën a ko seer. wax nga ko sànq ci sa biir wax combat bi ñu bëri bëggoon nañ ko mënuñu koo mënuñu koo jot euh, yow yàlla yàlla def nga décroché combat bi euh, Jams lan mooy lan mooy secret exact parce que gis nañ de ay bis yu rek macha allah lay lay lay lay organiser. waaw samay secret nag mooy euh, man dama gëm ne. bi ñu sant yàlla julli Seydina Mohamed sant suñu ñaari waajur ak suñu sëriñ. def ko yëfu mbar kilifa diine kilifa aade xol bu set am na ci solo. Hmm. ndax nit su fekkee ne li ngay liggéey da ciy demee gi yéene dem see xol bu rafet amaana yow lépp loo xam ne danga nga jàpp ne day taaral bi da nga ciy dugg même boo koy def di ci gaañu sax da koy def loolu ku koy def sa bis nii rek lay def loolu moo tax ñun wax dëgg yàlla suñuy bis. di demee noonu dañuy sant nag yàlla bu baax di ñaan yàlla yokk uh-huh. yokk mbir mi uh-huh. tàllaat àdduna bi loxo ak sénégalais yeeg gambien yëpp ñu wax ne lii bisu àdduna la bisu sénégalais yi la bisu gambien yi la képp koo xam ni mën nga ñu si jàppale uh-huh. ñu ngi lay tàllal loxo nga jàppale ñu si ndax événement la waaw ci côté yëpp nag si saayir si baatin si doole si lépp côté bu ñu si nit mën a soutenir daal ubbil nañu suñuy buntu sa diggante ak waa Gambie waaw kontaan si ñoom rek xam ne fii askan wi ñoo ma bëgg dañ ma koy wax ne ma ñun jooyuñu Gaston Mbengue jooyuñu Luc Nicolaï jooyuñu Aziz Ndiaye jooyuñu Pape Abdou Fall jooyuñu Fallou Ndiaye jooyuñu Dieye jooyuñu benn promoteur Sénégal ndax yaay ñun yow la xool si ñoom tey suñu jàpp dañ naan yaay suñ Luc Nicolaï yaay suñu Gaston yaay suñu Pape Delis yaay suñu lépp ndax événement yi Sénégal di am Sénégal ba ñu koy dund mu fay yëngu yaa ñu koy indil fii ci bi te heure boo ko defee da jël Sénégal indi Gambie kon moo tax amateur rek askan wi yëpp foofu lañu ma teg démb rek dafa am benn waaye bu ma ko benn kilifa ne ma sport dafa bokk ci lu yóbbu réew kanam te gis nañ ne fii football bi évolué wu fi noonu làmb jee fi tele tax imaasu làmb ji tey yaa ngi koy jël di ko porté di ko yóbbu feneen kon waxuma ne sax Gambie waaye président wu réew mi waroon na la defal décoré mm-hmm. ci li ngay def ci imaasu làmb Gambie mm-hmm. ci làmb mm-hmm. kon ñun looloo ñu war te ñu ngi ci dafa guñu dara loo xam ne waruñu ko def li ñu war daal ñu ngi ci di ci góorgóorlu waaw bu sottee dañ naan borom bi rek lu si aw tamit dañ naan ci ñun la dañ doon jéem yeggul mais wax nga ko sànq xol xol xol xol xol suñu borom di fay te xol dafa am solo dafa am dafa am solo ci doomu aadama mais jam gis nañ làmbu Sénégal brosse nga ko sànq làmbu Sénégal fi mu toll doon nañ la gis ngay tëgg ay ay ay événement làmbu làmbu Sénégal tolluwaay bi ban jàngat nga ci mën a def waaw làmbu Sénégal tolluwaay bi ñu ngi sant yàlla tamit foofu gis nañ ne làmb ji boo xoolee ay cinq fu mu nekk léegi bokkul. Mm. lu ko waral nag mooy média bi daf ci am solo. Mm. balaa avant média bi di bëri ci làmb ji am na fu làmb ji am na fu mu yokk ñun nag li ñu gis mooy fi làmb Sénégal tolloon 2005 ba 2010. guddi yi làmb Gambie fa la toll. mais mais média bi bo mooy média bi wax nga ko sànq ban ban ban kii la ci def. noo jàpp nañ kii nañ ci ndax ñëpp xam nañ ne ay yeneen télé yi bi ñu ñëwee yokk fekk ci RTS la làmb ji. gën a làmb ji gën a évolué ñi nga xam ne waaw wane na. ay mbëri ndaw am na ci bu njëkk boolu sampi roi des arènes wala mbër mu mag dëgg kenn du la jël ci palaato waaw léegi nag bu demee ba xam nga ñëpp di mbër moo ci wax xam nañ la mbëri di dem fa leen neex ci àdduna presse bi da ci am solo waaw ñun nag loolu tamit loolu lañ ñëw fii di suuxat gàm bi xam ne làmb euh, pip àdduna lépp pip moo ko yor tey àdduna bi mooy doxee noonu ku la bëgg a jàppale dina xam yow yaay kan waaw làmb dafa dépassé fu mbër di doxee naan man man la mbër da nga war dox ci mbedd ñu ne diwa ngi nii comme sama grand liiru sama xarit. liiru jaan démb bi mu ñëwee Gambie nga xam ne ah loolu mu ngi nii du roi des wax dëgg yàlla waaye. mais mais mais mais liiru star la. waaw star la star am nag moo ko feeñal. Hmm. tax li may wax rek promoteur boo génnee budget def ko ci événement pour ci làmb noonu nga war a génnee budget def ko ci communication ci communication. très bien di nuyu moom di démb bi ñu ñëwee Gambie fi nga xam ne. tey soo ko waxee sax mun na nekk dara waaye amul fii benn mbër boo xam ne yaa ngi fii Gambie ëpp leen ëpp leen coow. Mhm. James yaakaar naa waxtaan bi waxtaan bi am na solo mais mais mais mais du ñu waxtaan ba pare te te duñ laaj ci li nga xamante ne bii mooy affiche yi am ci ci ci làmb ji su ma la ne woon tafaatin ak guy gi nga jàngatal ma combat boobu. tafaatin booy ñaa. tafaat tafaatin booy ñaa du moins. waaw combat bu neex la. combat bu neex la bokk na ci combat yi dàq ren si saison bi. ndax ñoom ñaar bu ñu bëree mu neex bu ñu xeexee mu neex waaw làmb ju rëy làmb joo xam ne bés ci biir bés waaw làmb joo xam ne nag ku teeyul mën nga ci juum ndax làmb moom mënul ñàkk favori waaye làmb tafaatin booy ñaa ah, ah bés la de boo doon jox favori koo koy jox no làmb jooju Sénégal yi nañu jàpp ne tafaatin mooy favori comme ni ko gaa yi di waxe tafaatin mooy favori ndax moo ñëw ba rek Boy moo njëkk Boy Niang moo ko gën a luur ci poids yëpp waaye man duma ma gisee foofu mm-hmm. man su may analyse si biir bëre bi yaa ngi dégg ci biir ak sport de combat bi mm-hmm. ku ci nekk mun naa la jox favori ci biir sport de combat bi ñoom ñaar waaw mm-hmm. am na nu ñuy bëree Boy Niang day nekk ku ci nekk am nga sa fooru bopp sa boo xam ne bu ñu ci bëree yaay favori favori dama gars yi dañ siy juum nekkul ne mbër mi moo njëkk ca làmb rek moo mag moo ëpp doole rek mooy favori du foofu favori da ngay xalaat nga ne ah ñaar ñi kat suñuy bëree mille sens bi kii moom moom la ñi ñi am yaakaar ne mooy gagné loolu mooy favori mooy koo xam ne ñëpp xam nañ ne mille sens yaay gagné bu leneen xewee rek day bett nit ñi favori foofu la loolu loolu moo tax ñu naan favori waaye ñaar ñoo xam ne suñuy bëree lu nekk war naa mën a xew bul toog rek na diw mooy favori. kon yow daal ma gis am na bëre bi nu muy doxee Tapha Tine mooy favori am na nu ñu bëre Boy Niang mooy favori 100 pour cent kenn mënu ci dara. ndax ku ci nekk da ngaa am ku ci nekk am nga am nga waa am nga loo for loo xam ni tey yaa ko moom ci biir bëre bi. te guy gi guy rëg rëg. guy guy rëg rëg tamit ka saalika noonu. làmb yëpp noonu la amul fi benn làmb bu benn mbëri doon favori 100 pour cent amul ci amul ci làmb favori 100 pour cent mooy koo xam ne ni tey au moins yaa ko dàqale lépp ci làmb. waaye tey waaye tey combat yi taxaw yëpp ah, boo jëloon ñaari mbër di wax. moo ne kii moo dàqali morom ko da nga naan kee ko dàqalale. Mm-hmm. mënoo fi jël benn combat bu taxaw nga ne kii dàq xeex. Mm-hmm. moo ëpp doole. Mm-hmm. noo jam yow dafa mel ne da ngaa da da ngay ragal mbër yi mere la ko man waxuma mbër mere man li may wax man li may wax dama ko xam dama ne. man du ma analyser di mu tàdd kii di poobar kii di misiwi kii di saaf kii foofu <laughs> fii Sénégal looloo fi am analyse amu fi. ah ñii ñii dañuy mu tàdd. kii waaw man mayonnaise kii misiwi kii saaf kii pour bañ ko la mere dama ne sport de combat fi ñu war a génnee favori dëgg dëgg gisaguma ko ci sport de combat yi am ndax yow mënoo jël fii sa bëgg tafaatin boo ñaa nga tudd jëlal big nga lii man ma cinq point yoo xam ne yëpp danga nga naan tafaatin moo ko ëppale moo moo ko ci man mënoo ko am mm. yaa ngi dégg mënoo ko am ci combat yi taxaw yëpp kon amul benn combat boo xam ne favori cent pour cent mun na fa génn mm-hmm. ndax fii boo neen tafaatin boo ñaa mun nga ne ah boo ne tafaatin a dàq bëre nga ne kii dàq xeex nga ne bu ñu tegee pied gauche kii la arrangé bu ñu tegee pied droit kii la arrangé kon favori 100 pour cent amul ci làmb mm. da ngay jël li ngay attee mooy nga jël point yi teg mm. ah làmb ji kat lii la mm. dam yi la ñu bëree système bi cent pour cent favori tafatin la suñu bëree système bi cent pour cent booy ñaam fa booy ñaam mooy 100 pour cent favori di gis ne loolu soo ko defee doo daanu système bu ci bëree nag ah boobaa lay sa analyse am solo jaajëf jaajëf Jams euh, xanaa kon ñu jox gars yi rek dig daje incha allah euh, bu ci yàlla àndee euh, ci diggante ki nga xamante ne bii moom mooy leket leget bu baara ak France di combat ba nga xamante ne bii amateur yëpp ñu ngi koy xaar nga fàttali ñu ko date bi. date bi le 28 mars la. Ah, ndax sargal jigéen lañ ko bëggoon def le 7 mars fii ci Gambia semaine mondiale de la femme. Mm. comme ni ñu ko tëggee woon daaw Sénégal. Mm. waaye Gambie moment boobu dañu am max international ci state bi. moo tax ñu bëgg ba pare max bi quoi ñu dal max bi la 25 la pare max bi la 28 mooy doon combat bi incha allah. looy wax looy wax looy yi kàddu gu mujj gi. yi kàddu gu mujj gi di leen ziar bu baax di leen nuyu di leen jox seen wàccuwaay di leen tàllalaat loxo di wax sponsor yi société yi nekk Sénégal. Mhm. nekk Gambie. Sénégal ak Gambie benn produit boo gis Sénégal tey di nga ko gis Gambie fii ñu ngi ci dëkk bi di ko jaay ñor seen produit bëgg fii mu teg loxo fii ci Gambie nañ ñëw wax ak ñun. ñu xam ne ñun combat yi ñu tëgg fii tey mooy sunu roi des arènes yi nekk Sénégal munoo am sa produit boo bëgg a jaay bëgg si coow lu raw si combat bi kon ñoom ñëpp ñëw ñu xam ne ay doomu Sénégal bi lañ ñun ñoo nekk ci diggante bi def événement foofu di ko def fii ñu jàppale ñu soutenir ñu dugal seen loxo ci bis bi ñun tamit ñu jël ñoom li ñu yor ba bëgg ko dugal camp wan ko àdduna bi àdduna bi teg seen bët rek du ci am. waaw ñu ngi leen di woo ci loolu di nuyu kilifa di nuyu kilifa aada yëpp comme ni ma ko waxee woon di nuyu président Adama Baro. ak gouvernement am yëpp di nuyu opposition bi fi nekk di nuyu ministre sport Bakary Badji di nuyu samay sponsor yi ma fi àndal ku ci mel ni BMG Property maa ngi leen nuyu Xadijatu Saw suma xarit suma jigéen suma mag maa koy nuyu di nuyu tamit Xelcom automobile waaw Modou Baye Fall jógee ba Sénégal ñëw ànd ak man fii ci sama événement sama xarit la sama lépp la maa ngi koy ñaanal lépp lu mu bëgg ci àdduna yàlla na ko yàlla defal ci barke Seydina Mohamed di nuyu staff bi nekk fii yëpp. ak bi nekk Sénégal. looy looy wax Leewtoo TV. Leewtoo TV mention spéciale ndax lii mooy wane ne. Mm-hmm. làmb moo leen ñor. làmb rek a ñu ñor. waaw ndax. wax naa ko démb fu fu ñu fu ñu làmb xeeñ fu ñu fu ñu fu làmb nekk danañ ko xeeñ tuuti. waaw bu ngeen taalee seen micro déplacé wu jógee Sénégal ñëw ba fii wax dëgg yàlla te promoteur bi laaj tegul leen tegu leen ko benn sars da ngeen toog ñëw ngir wër si làmb kon da lay ne yéen seen liggéey moo leen ñor. Mm-hmm. lii nag di wax directeur bi. moom ci biir làmb la bokk ndax promoteur la mu gën leen a dooleel gën leen jox ay moyens ndax xam ne liggéey bi loolu rek la laaj fii ku fi am ay moyens liggéey kon ay caméra kese wala ay micro kese liggéeyul ku créer sa société jël ay ndaw ñu ciy liggéey gën leen a dooleel soutenir leen ñu wane seen bopp liggéey bi dox ñu ngeen woo ci loolu xam nga Leewtoo ca kanam. jaajëf James. jaajëf Mbaye Baba rendez-vous incha allah mois de mars. amul benn problème ci diggante France ak Leket. ak Leket. yàlla na yàlla dolli jàmm. allahumma amiin jaajëf jaajëf bro. Okay